Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Je vous souhaite belle carrière à vous tous. Excellent mois Ramadan, excellent temps de carême. les textes sont validés et la séance est Atelier national de validation des textes d'application de la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture, voici enfin, après une décennie, les derniers actes qui sont posés pour consacrer la loi portant statut de l'artiste. Il s'agit de cinq éléments, deux décrets et trois arrêtés ministériels à prendre pour boucler définitivement les contours de cette loi. Voici Khouda Diagne, directrice des arts, qui revient sur les textes et leur importance. Avec euh, cette loi, nous avons deux décrets d'application et trois arrêtés ministériels. les deux décrets euh, concernent euh, la protection sociale Et le second, le, la mise en place d'un conseil consultatif des arts et des lettres qui permettra de discuter des grandes, euh, de, de, la problématique des arts et de la culture au Sénégal et dans le monde, qui sera euh, composé d'imminents intellectuels et d'acteurs culturels. Nous avons aussi euh, l'arrêté relatif à la carte professionnelle. Cet arrêté aujourd'hui consacre une carte professionnelle à tous les artistes. Il y a aussi l'arrêté qui porte sur le répertoire des métiers. Donc aujourd'hui au Sénégal, nous avons un répertoire des métiers officiels, euh, de la, des, des, métiers de la culture et des arts, et qui est en ligne. Et pour finir, nous avons l'arrêté relatif à la licence d'entrepreneur culturel. Et vous verrez que dans, la, dans cette catégorie-là, nous avons deux licences. Une licence pour les entrepreneurs culturels de, qui s'activent dans les dans les activités générales et une licence d'entrepreneur pour les organisateurs de spectacles. Parce qu'il faut dire que les deux activités sont différentes et impliquent l'un comme l'autre des spécificités. Donc, euh, ce sont ces textes-là qui aujourd'hui euh, font l'objet de cette rencontre-là. Et le ministre de la Culture est venu partager euh, ces textes avec tous les partenaires pour pouvoir procéder à la validation, les envoyer pour signature pour les décrets et signer lui-même les trois arrêtés ministériels. L'un d'eux, le décret portant protection sociale de l'artiste, a été attendu par tous les acteurs. Un des décrets les plus importants, qui est le décret sur la protection sociale et qui était attendu depuis longtemps. Donc ce décret-là, aujourd'hui, euh, vient euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, consacrer un statut de travailleur salarié aux artistes, mais euh, permet en même temps la prise en charge de leur sécurité sociale. le retraite, les accidents de travail et les allocations familiales. Donc il faut dire que ces textes aujourd'hui que nous voulons euh, qu'ils soient validés, ils sont révolutionnaires et vont améliorer le, la condition de l'artiste. Dès que nous sortons, je pense que le ministre a pris l'engagement tout à l'heure de signer les trois arrêtés. C'est ça qu'il peut signer. Et pour les décrets d'application, dès que nous sortirons de cet atelier-là, ils seront envoyés au secrétariat général du gouvernement. C'est ça la procédure pour arriver sur la table du président et nous espérons que la signature se fera rapidement parce que Ousmane producteur, manager et membre du comité de pilotage qui a travaillé darrache pour arriver à un consensus et bâtir ces textes. Il dit toute sa joie d'assister à la validation de ces documents. Je suis très heureux de, faire partie de ce qui aujourd'hui, euh, en fait, euh, ont, ont, fait partie de ce parcours et qui finalement euh, voilà, vit ces moments de, de délivrance, on peut le dire comme. Désormais, avec ces lois, l'artiste est vu comme un salarié et pourra faire prévaloir ses droits ainsi que bénéficier d'avantages liés à la protection sociale, plus qu'une reconnaissance, une revalorisation, une dignité retrouvée. Oui, la dignité dans l'organisation, la structuration, la reconnaissance. Mmh. Euh, la reconnaissance, vous voyez-vous, le Conseil consultatif des arts et de la culture, mmh. euh, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude que, que, que la société euh, nous donne. Mmh. maintenant, tout cela doit se ramener à, à un cadre réglementaire, mm. Mm. légiféré, organisé, structuré, mm. où euh, nous nous reconnaîtrons quand on sort de nos, de nos maisons comme des travailleurs, toutes les lois, tous les textes de règlement qui s'appliquaient aux autres secteurs aujourd'hui s'appliquent à nous parce qu'il y a ce, cette loi qui est le statut de l'artiste et des professionnels de la culture qui nous adosse à, à la à à la loi pour les impôts, mhm. donc la fiscalité, Euh, au, des impôts, j'allais dire, qui nous adosse euh, au code du travail, qui nous adosse euh, à la code de propriété intellectuelle, parce qu'il y a des questions de droit quand on est entrepreneur, s'acquitter du droit des autres, mm. à tout ce qui touche la sécurité sociale, de produire de la richesse et de la valeur, parce mm. que nous devons cotiser pour cet État-là. Nous devons cotiser, reverser des impôts, nous devons reverser des taxes de la TVA, mm. et nous devons nous entretenir de c'est-à-dire s'acquitter des cotisations sociales mmh. au niveau des caisses de sécurité sociale. Pour le ministre de la Culture, des industries créatives, du patrimoine et des loisirs, ce fut un long parcours qui aujourd'hui connaît son épilogue. nous venons de boucler un très long processus de plusieurs années. Mais on ne pouvait pas prendre les textes comme ça au niveau du ministère. Il fallait que tous les acteurs tous les sous-secteurs soient impliqués. Nous avons présenté aujourd'hui ce bloc de cinq textes qui a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des représentants des acteurs culturels et des artistes qui s'approprient ce texte comme étant, ces textes comme étant les leurs, car étant de bout en bout euh, au cœur de leur conception, de leur élaboration. Maintenant, il ne reste qu'à les transmettre euh, les textes au secrétaire du gouvernement pour le transmission au président de la République, au Premier pour leur adoption au Conseil des ministres. Maintenant, pour les deux décrets et pour les euh, trois arrêtés, bien entendu, dès la mise à disposition de, de, de décret fixe attribution des ministres après le remaniement, je signerai ces arrêtés-là qui également vont en vigueur. Maintenant, c'est une révolution en vérité dans le domaine, dans la protection de, de l'artiste, de ses intérêts, de son avenir et dans le démantèlement de toutes les formes de précarité qui piégeaient la vie de l'artiste ou qui étaient des entorses par rapport à, son, à sa jouissance de, euh, de, de, son, de, son, talent. Je pense que c'est un grand jour. Le secteur de la culture, les acteurs majeurs se retrouvent protégés, préservés, avec un statut clair. Au-delà de cette loi, reste encore la question de la copie privée. Là-dessus, voici ce que répond le ministre. Ça, déjà. par la loi, le ministère de la Culture, à son niveau, a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il s'agit quand même euh, de questions financières. Mon collègue, le ministre de, de l'économie des finances et du plan, a donné toutes les instructions nécessaires aux services compétents des douanes et de, de, de, de, la fiscalité pour rapidement finaliser la mise en œuvre. Après cette validation, restent encore les étapes de signature de ces décrets et autres arrêtés et cela devra se faire dans les jours à venir, en tous les cas avant le 2 avril, date de la fin de mission de l'actuel président de la République. C'est la fin de votre journal de la culture entièrement dédié à l'atelier national de validation des textes d'application de la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Merci de l'avoir suivi. dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit je vous souhaite belle carrière à vous excellent mois de Ramadan excellent temps de carême tey jii dañuy waxtaanee PLF artistes yi la loi yi nga xam ne jot nañ ko jël ngir valider lépp lu jëm ci wàllu gëdd ak taxawaay artistes yi fii ci réew senegal diiru daanaka fukki at ngi nii ñu yëge ko wàcc ñoom artistes yi la ngir ñu mën leen tënkal ci ay yoon seen ak ak seen yelleef lu ni mel nag daanaka yemb na fu mu nekk nii juróomi mbir rek moo ci des yaari décret ak ñetti arrêté yoo xam ne ministre bi yore lépp jëm ci wàllu aada moo ko war a jël nañu teewlu ministre bi di Aliou mu dellu si ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu décret yooyu le ak arrêté yooyu le ba jox leen cër boo xam ne loi moo leen ko jox mooy lépp luy aar wareef ak yelleefu ku yëngatu ci tari ak aada bañ ko defee nag ba pare dañ ko tegaat euh, yeneen juróomi euh, poñ yoo xam ne ni moo koy mottali pour jëfe ñu mën koo jëfandikoo benn ba mooy war nañoo taxawal kuréel goo xam ne mooy ëmb ñëpp di toppatoo loolu di saytu lépp li nga xam ne moo jëm lu ñëwal ci wàllu coono ak aada euh, ñu nekk ci ñu yëngatu ci loolu ak nguur gi ñëpp loolu aussi décret ba waxtaan nañ ko tey ba pare nañ ci. beneen ba mooy li nga xam ne ni mooy li leen di aar ci wàllu seen dund. ak seen liggéey ak seen lépp boobu décret aussi def nañ ko tey ba déggoo ca leen li mooy koo xam ne yaa ngi yóotu wàllu li ñuy entrepreneur culturel mais boo tëbëree ne loolu laa il faut am loo firndeel loo wane fësal pour ñu jox la kayit bi firndeel loolu nga am ci li ci war a def mën koo jëfandikoo aussi kayit bi waxtaan nañ ko tey ba matal nañ ko ak lépp loo xam ne mooy xëy ak ngont ci wàllu cosaan ak aada mooy ba boo ñëwee tey leen la man jàngalekat la kii dafay wëy kii dafa nangam ñu xool métier yi ci nekk yëpp bu ci nekk njox turam jox la mu ëmb pour nga doon ko lii nga war a def lii nga war a man li mu laaj ci tàggat ci mën-mën ak ci lijaasa ba lépp pare loolu liñ ko dajale boo ko boolee jege na lu ma ñaar téeméeri xëy ak ngont yoo xam ne ni ci wàllu cosaan ak aada ak tarix ñaar téeméer loolu ñu bëri xamuñ ko Sénégal moo sa fay am boobu këyit aussi def nañ ko ak yu mel noonu daal liñ liggéey ba muy juróomi ponk yoo xam ne mooy mottali loi boobu Ousmane Faye producteur manager bokk ci comité de bi lay di rafetlu bi lay liggéey di xam ne ndax yàlla bi la yoon daal di tënk lépp lu jëm ci wàllu loi yi nga xam ne ñooy saytu taxawaay gëdd ak ak ak yelleefu artistes yi fii ci réew Sénégal. très très enfin très enfin parce que fi ñu jógee sori na mais wóor na ndax euh, yàqin bi ñu amoon ci liggéey bi ndax euh, euh, kenn ku nekk ci ñun ni mu ko jëlalee woon boppam moomal ko boppam. Mm-hmm. te bokk ko ak ñëpp tamit. Mm-hmm. wóor na parce que nekk na liggéey boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko xalaatandoo ñun ñëpp ñoo ko tabaxandoo waaw ba fi mu yegg si tey jii nii hmm. waaw mu nekk loo xam ne comme ni ma ko waxee sànq bi ma jëlee parole am na ñu bëri ñu fi bàyyi. Hmm. mais ñu bëri ñu fi fekk. c'est une question de dignité c'est une question de dignité uh-huh. liggéey mën a tedd daf cee bokk euh, dëkk yi ñu xam di fa dem di fa di fa liggéey muy France bi ma gën a xam hmm. euh, doon yi damay joué ji waaw damay liggéeyi parce que vous êtes considéré comme un travailleur. Uh-huh. métier nga yor métier bi. donc métier yooyu ñu nekk tey jii Sénégal muy les métiers de la culture. Uh-huh. nekk na loo xam ni tey war na mën a dundal ay junni junni junniy sénégalais. Uh-huh. ba nga xam ni problème yi ñu am ci wàllu emploi doomu aadama yi waxuma emploi des jeunes kese. mais képp koo xam ni da nga ci dugg nga war ci mën a liggéey war ci mën a tedd war ci mën a defar defaru ci quoi. muy xam la ne lu jël koppar ak avantage yi nga xam ne am na ko. xeetu delloo gëdd ak delloo njukkal artistes yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw loi bi lee bi nga xam ne dina am lu bëri lu may artistes yi lee loi bi lu mu ñuy permettre mooy ñu ñu ñu ràññee ñu ci suñu suñu liggéey ñu ràññee ñu ci suñu suñu suñu mat gi ñu mat euh, métier yi ñuy def hmm. te nit ki pour nga mat li ngay def da jàng dangay gëstu da ngay dox dangay jëflante pour ce qui concerne les métiers de la culture bokk ci ni ñuy tuddee professionnel donc li muy indi mooy hmm. euh, bépp avantage bépp privilège bu acteur bu war a nekk ci secteur bi nekk acteur professionnel war a am hmm. yow waratoo ko mën a jot hmm. mënatoo ko yóotu dina ñot di indi dara parce que euh, Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni des frontières économiques parfois un peu poreuses en tout cas dans le domaine de la culture où des gens des producteurs des exploitants peuvent rentrer dans notre pays liggéey li ñuy liggéey am xaalis génn yóbbaale xaalis bi te xaalis bi du jaar fenn aéroport lañ koy jaarale waat dem seen yoon loolu dañ na fi tey parce que ñun suñu wàllu bopp loi bi may nañu ñu taxaw pour mën a surveiller suñu propre économie suñu propre business hmm. état bi du ko def ñun ñoo ko war a def hmm. ci dispositif yi nga xam ni état bi may nañu ñu teg ko hmm. bu ko defee kenn ku nekk ci ñun war a mën a am matuwaay pour def loolu nga xam ni bépp koom-koom boo xam ne léegi dafay génn sunu ci sunu secteur mën a dellu si ci ñun mën a booster suñuy entreprise waaye mën a dellu ci état bi mën a indi une contribution su ce qu'on appelle le PIB mm-hmm. et donc apporter notre contribution à la croissance gis-gisam ministre bi di xam ne ne ñoom de doxalin bi la ñu ngi koy rafetlu ndax kat nekkoon na loo xam ne artiste doon nañ ko xaar ni ngi tey nag doon nañ ko jëmmal te bëgg nañ ñu siifee lépp lu jëm ci wàllum décret yi ak arrêté yi laata ñaari fan ci weeru avril bi ñu dëkkmal. at yi nekk yëpp at yu bëree bëree bari ñu yëngatu ci wàllu cosaan ak aada ak taarix dañ am bëggoon am jumtuwaay yoo xam ne mooy seen kaaraange ci seen liggéey ak seen ëllëg ak li ñuy jëriñoo bañ a naxasaay ndaxte nag tey jii kuy liggéey ci wàllu cosaan ak aada ak taarix boo feebaree wala nga am gàllankoor walla ndog dal la la nga boo xëyul pour nga am lu la aar dafay xaw a jafe mooy amoo retraite amoo. ay boo feebaree lu lay toppatoo yoolu àppan jàpp ndimbal yi la ministère bi jox wala yow nguur jox wala njiitu bi loolu lay jox loolu dañ ne nañu xool ni ñu koy ñongalee bëgg leen yombalal seen seen seen seen ñax tey jëriñ leen ëllëg wala jëriñ leen bu gàllankoor amee leen doon waxtaanee mais mënuñ koo jël ak nguur gi euh, xaatim ko yóbbu ko signé ko defee ko ndaxte war na gaal yëgoo te lii li mu laaj mooy ñëpp diisoo ci weccoo ci xalaat waxtaan ci ba nekk jàpp ne lii gis sa biiru la gis sa bopp gisoo ci lenn luñ ci am ndëgg sërëxal wala lu ñu nëbb loolu nag moo tax mu jël at yu bëree baree baree bëri ba biñ ko defee tey nag mu pare ñu dajalewaat kuréel yi yëpp ñu leen teegal toggal fii amul benn pàcc ci wàllu coono ak sari bu ñu fàtte biñ dajee ñoom ñëpp ñoo ko bravo nangu ne lii ñu gis moom doy na leen moom mooy li méngoo ak seen bëgg-bëgg loolu lañ di bëggoon démb ak barki démb ñu bëgg jëfandikoo moo tax may di gërëm di sant di bàkk di kañ ñëpp ñi nga xam ne def seen xam-xam seen mën-mën seen seen temps ak seen lépp loolu nag fi ne fan yi du jàgg du yàgg ñu bëgg conseil des ministres beneen ba aussi li ñu war a xaatim man en tant que jëw dañu may jaxaatim ko loolu moom daal di féete bool jëfandikoo ko tam ginnaaw loi bi nga xam ne moo jàpp jëm ci wàllu àq ak yelleefu artistes yi ak seen gëdd ak seen taxawaay am na it leneen loo xam ne artist doon nañ ko dox di ko wax boobu ba léegi di ko ñaxtu mu jàpp jëm ci wàllu copi privée loolu it ministre bi di la ki tontu. c'est prévu déjà par la loi le ministre de la culture à son niveau a fait tout ce qu'il fallait faire mm. mais il s'agit quand même euh, de questions financières mon collègue le ministre de l'économie des finances à donner toutes les instructions nécessaires aux services compétent des douanes et de, de, de, de la fiscalité pour rapidement finaliser la mise en œuvre. fii la ñu ndar keppe seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi.